Ya Ma, ci Bamba man khadim bi sibtu ca ndaam bi sët ci waa ngaabu mul isaay sama wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki juliti <clears throat> mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu leen ziar waaye di leen balu ak di leen ko bal di ñaanal suñu yaakaaru tekkel sëriñ xarit do gay suñu borom yàggal ko fi lool tamante biir di nuyu bu baax mboolem mbokki taalibe jël ñëw bokk teg ci loxol juriñ mo mar Kane mi nga xam liggéey bi yëpp tegawaat ci ay loxom té dara tax ko jug lu dul dundal bis bu tedd bi nga xam moy bis bu 18 juin bi sunu sang bu tedd bi ganewaat adina waye di jéggul it sunu jëwriñu bop ñu koy wax jëwriñu mustafa lu ndax bu xasse bay yëkëti kaddu rek ñun dootu dootuñu amatu lu ñuy wax ndax ko xam bi ngay doon lu ndaw la yëkëti say la japp ci solo loxo la serigne bi ba tay ji bu lay tuddu di tuddu serigne bi sabab bi bu ci mom bu xasse ba ay cadeau di jibril rek ñun amatuñ dara lu ni wax dañuy daal di see ci bir ay cadeau kon cadeau yi day daal di doon lu tënku rek lu nu bëgg séri ci serigne bi ndax ko xamne yalla dafa def ñu bok ci ñi nga xam ne sëriñ bi buy ubbi bokk nañ ci ñi jëk ci mom waye it bu bunti di delu bok nañ ci ñi mu mujj ci mom motax dañi wax rek li nu meuna wax mu doon li meuna wax te yam ca ndax la cey beuri day biré lool netale rek ben waxtan bo xamne ne talibé taalibe dañoo mës a ci daara ji seq ko am la kenn ku ci indé ab laaj ne euh, dafa bëggoon ku nekk ci ñun rek yëkëti kaddu jukki ci li la gëna yëm ci sëñ bi mu doonal lu yéme nak ndax ku ci nekk lool lamb ba daj ko rek dang koy daari xeet wala da nga da ngay séenaat leneen lu nekkaat ci wet gu lu gën a gànjaru loo xam ne bëgg nga koo gën a yëkkati waaye ku ci nekk rek am nga loo yëkkati am ci ñu ne am ku li ko yëm ci sëñ bi mooy xajoo gi xam ne da koo xajoo ay bi nit ñi te yitteem du dara lu dul ak Sëriñ Tuubaa kooku ne moom loolu li ko ci yëm am ci koo xam ne nee teraanga ni ko Sëriñ Xaadim doo di def nee amatul ci àddina moom nee na yim ci xam te dund ko ci ñu ko Serigne Khadim Lo di defee loolu lu ko yéem la lool am ku ci ne Serigne Khadim Lo kay del su àddina doon wàcc ci kawam tey ji war koo fekk si ba lu mel ni njiitu réew yi nga xam ne ñoo fi nekk ba yu fi jógee buñ daan ñëw ci moom nee na lu ko ci yéem mooy dal gi sëriñ bi di àndal dal gi waaw nee na moom lu mbooloo bari lu raj raj raj raj bari dal gi sëriñ Xaadim Lo di dal ba jëflanteeg ñoom ba ku ci nekk la cay sa ak sa aajo mu def kook yow nee na moom loolu lu ko yëm ci sëriñ bi am ci ko ne moom li ko yëm ci sëriñ bi mooy patience am mooy nee na moom sëñ bi dafa dafa doon nit ko jëmm ju jëmm ju yàkkamtiwul dara waaw jëmm ju yàkkamtiwul ju yàkkamtiwul dara am ku ci ne moom li ko yëm ci sëñ bi mooy xam-xam bi bi nee na lu mu doon ci xam-xamu diini baa fi àddina toll. ak fi géopolitique bi di tourné ci nit adina di doxé ak lépp lu mënti doon rek néna liko ci yëm ci sañ xaadim do dem moy waxtu wu ci yëkëté kàddoom di ko yëkëté di ci wax néna dina ci feñal xam-xam bo xamné ne fay melni néna sun na borom dafa dafa dafa dafa tëjoon bop yëpp jël xam-xam bobu jox ko sëriñ bi mu yëkëti ko waaye ñun ñëpp buñ ko déggee rek dañuy daal di yéemu ci xam-xam bobu moom néna loolu dafa bok ci li nga xam do ko yëm ci sëriñ bi ak it buy waxtaan ci sëriñ Tuubaa sa su nekk mën na la cee waxtaanal fukk yoonu juroom waaye sa bu dikkee indi la lu bees ci sëriñ Tuubaa nee na loolu lu ko ci lu ko ci lu ko ci lu ci yëpp la am ko ci ne jékku gi mu jékku àddina waaye waxul wan gannaaw gi mu koy wan gannaaw rek yem ci waaye nee na ni muy tàggatee sax ñi mu njaboote ci ñu wan ko gannaaw sëñ bi waaye muy tàggatee ñi mu njaboote ci ñu wan gannaaw àddina kon loolu ay ay ay yenn la rek yuñ ci yuñ ci yuñ ci jukki yoo xam ne xëy na ay mbokki taalibe toogoon di ko di ko séq waaye ñun leen mën a wax ci sëñ bi ci lu gàtt rek dañ koy jëmee ci bëggam ci Serigne Touba bëggam ci Serigne tubaa nee naa su doon dañ koy jël di ko teg ci balance di ko peese balance boo ko jox ay unité ne la àttul ba ko sama unité daal àttunul bëgg Serigne doo ci Serigne Touba ma ko bëgg googu fu mu àgg fu ab jëfam àgg fu ay doxalinam àgg bëgg googu rek ko yóbbi bëgg googu tax na tey jii euh, lu ci ci biir ab doxalinam. so ci tewlo ba baye ci xel rek xamne lu muy jëf digëntem ak jamm ñi ak ko rafetal la rek way yitteem jëf ak jotam gep jël ko jox Ahmadul khadim to lol dafa doon lu yeme yeme yeme lo xamne da nga ci dund yeen say lo xamne euh du nexa du nexa sax wax wa serigne bi dafa amul luddul serigne sëriñ beggul luddul serigne dul sëriñ jëf fofu lako jëf loko ko gis muy dem ci lolo ko dik rek yittee jam ñi la ak ñu mu leen tëttee jàppale leen ñu ba ñu sun diggante ak Serigne Touba waaye cofeelam ci Serigne Touba loolu leneen la ba tax na bo démé ci ay xasidaam xasida go gis mu jël ko diko way rek tegtalu ci dem ci bayit ba ci mujj mu ci mën di way bu bala daaneel way ba dana la won ni mu delloo ci Serigne Touba man xat mu na way bi mam maam janaam xujja kay sa mam yi bay yam ci bam salatu wa taslimun ala khairil anbiya bi aalin tatak teg moo mooy yaat Cheikh Bamba tey ba yàlla wootee ci Azal njool màkk moo njëkk a biral Cheikh Bamba daal di koy digal nu may def mu ne naa yem ci Bamba Ahmad maanaam te loolu lépp ak bëggam ci Serigne Touba rek moo ko ko moo moo ko war turam àgg nag tey ci àddina ay jëfam yu tedd rek ko fa àgg jëfam yoo xam ne la mag ma waxoon rek moo ci àgg euh, boo déggee ay jëfam déggub liggéeyam soo waxoo ñëw ba ci moom da ngay jàpp ne borom yi ba jaaw nga fi waroon fekk waaye boo ko fekkee at yi xamne jom ak fit bisi na ñi bisi na ci sëriñ xarit loo mom nak dañuy di fàgguteefu serigne touba fàgguteef nag nak koko fàggu rek ko xam kon nak serigne touba rek xam li mu doon ñoo ngi baal ñep ak di ko baal ñep di santaat ñep di ñaan daal suñu borom yagg ko fi lool dama and wér ñu yagg and rek di saafonte ci bis bi jërë ngeen jëf